fii Talib Mag wala ñu ne Cité Barak fekk si un grand champion Cité mu jëm si journée le 22 janvier digganteem ak Papa Ngane sox sox xale bi lëmbe simple bi Cité <laughs> nuyu naa la. yaa ngi maa lay fay di wax jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul caraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall jaaraama Cheikh Modou Moustapha Fall waaye it di la fay rek <laughs> di la dalal jaamu naa la fi mooy jàmbaar di nuyu waa koñ bi yëpp. sur sama grand Pa Moussa place borom place borom iPhone yi ah ay ñoom laay. fi ngay liggéey. ah mais fii mooy sama siège gars yi ñooy lépp su ma demee entraînement ñoo may laaj yaay doog a ñëw mbër ndax dem nga entraînement affaire yooyu lépp daal mi seen loxo. di nuyu koñ bi yëpp jàmbaar gépp lakale daan Gunaas Ceedo. Siteu ki fi ñëpp bàyyi nga jël ki lëmbali simple si poids lourd yi nga jël muy Pape Ngane Sokh ah, mais làmb lool la. làmb da ngay nekk champion ñu naan boo bëggee daan champion da boo bëggee nekk champion daan champion xëy na moom nee nañ gars yi dañ ko fee bàyyi mais dama naan déedéet moom gars yi bàyyiwuñ ko. avance bi jógewul si am na ko jëloon delloo ko. ah kooku maag moom bokkuñu ndax moom li muy daj ci simple man biir na ma ni man daj naa ko simple li muy daj simple man biir na ma ni man daj naa ko. Ah, simple kon mi ngi fooyee poids lourd ah mais Papa Ngane. waaw la moom waaw champion la dëgg yàlla moom dafa nen Ibou Ndiaye moom dafa yàpp Ibou Ndiaye mais man ki ma daan simple. kooku noonu simple ñi fi nekk ñëpp ñi ñuy wax ay ponkal lañ ci simple. billaahi wallaahi wataala kooku leen mën ñoom ñëpp. Zambala. Boña. bu nekk 100 pour cent xoolul gars yi nekk ci simple yëpp. dëgg la nag ñi nekk ci simple ñëpp ay jàmbaar lañ ay gaynde lañ mais Zambala xoolu leen te dañoo bëre bëre bu metti mu doog maa daal waaw. kon moom li ci simple man xam naa ko xam naa li ci simple donte ne moom mi ngi ci simple ndaanaan la dañ ko koy nagul mais fii arène la. Siteu moo tax mu bàyyi fi ñëpp jël Papa Ngagne. waaw parce que problème adversaire yow mii fekk naa la CNG du benn du ñaar problème adversaire xëy na moom booleeg moom rek wax dëgg yàlla mais maa ngi doon viser leneen mor avance bi mu sax taxawul te parce que dem naa bu mu gi dama ne woon est-ce que sax du ma bàyyi. bàyyi lamb billaahi ndax parce que dama baagante am na benn mois boo xam ne dama ko baagante CNG ba découragé idi lamb dafa metti surtout nga nekk xale di entraîner xam nga komba bëgg combat combat di la të gaay bu ñu la wooyee boo demee tey waaw suba mooy loolu noonu da dem bu mujj da ngay découragé après. la jag si wooyee rek. moo dama daw ñëw xaaruma sax avance bi ngelaw di ko ëpp. billaahi kooku c'est le meilleur. ay jag mais def na lu garaaw nag. Ah. journée boobu. barki maam Cheikh Fall dina gis lu doy waar. sa diggante boobu nga. barki maam mi ma yaakaar dina gis lu doy waar. moom jag jag si boppam. doy waar comme nan si bëree si ambiance si mobilisation. ci mobilisation ci bëre. ci kaw jàmbaar ji na nangoo taxaw rek bëre. waaw ngan moom ku ko xam-xam ne day taxaw samp jaaga. waaw kay xam nañ bërekat la. te nangul naa ko ni bërekat la mais est-ce que dina nangoo taxaw dëggal boppam loolu rek. nee na moom bu jour ba bëriwut ak yow day samp ngeen xeex. xeex. fan nga yëgee Papa Ngandou xeex. ah mais parce que loolu waxi mbër la rek. billaahi Papa Ngandou xeex loolu la. da ngay parce que loolu booy na samay nopp man. soosoo billaahi booy na samay nopp. loolu yéemu ma dawul sama yaram barki ma am see rafet. yow soosoo mu samp jaaga rek. yow eh, mii munul xeex. fan nga yëgee soosoo munul xeex. Ah, munul xeex rek. gars yi waxoon nañ ko si ordinateur. barki Serigne Touba Mbacke soox soox munul xeex. Siteu fan nga wékk ne soo Sokh mënul xeex. parce que dama ko xam. da nga dama ko xam. làmb bi mu taxawee bi ñu ma woowee takk bi ma nekkee Sall ndeysaan sama benn grand du ma tudd turam nag di yàq xelam damay bàyyi ba làmb ji yàlla. mun ma ndeysaan yaa ngi bëree ku yaru koo xam ne du siggi sa xool nit te da ngaa yaru seen signature xaw ma nu muy demee. mën na ko ma na ko kon moom làmb ji du mën a neex. ndax parce que moom Baye Fall la te li nga wax ni moom bu nekkee ci moom làmb ji du mën a neex. dafa yaru moom dafa yaru moom ah, dama nekk ak samay nit yoo xam te ne mi ngi ak ñoom. waaw bu jour wax la ñu ngi wax ambiance. ah mais est ce que moom dina dëggal boppam wax. Papa Ngane ko xam ne kon baax kon laa ba ji jeex na barki ma am seero man laa bëgg. na taxaw dëggal boppam. na na suul tànk yi ndenge ñaram. ma duma ko. bu ma daan bu gaaw. Eh? billaahi wallaahi. da da nga Papa yàlla baax na. li ci kanam raw li bët dama leer ba leer ni man li may daj ah du ma ni déedéet du ma ne amul ñu koy daj mais dama ne man sama entraîne li li may teg man ma koy tegoo biir na ci ay mbër yu ndaw yoo xamante nii duñ ko tegoo de. moom tam koy tegoo est-ce que dinañu la koy tegee moo tax maa wax la li ma la moo tax maa jiitu ci wax jooju damaa jiital loolu ci wax néew na samay moroom yoo xamante ne du ma ni déet mais man li ma tegoo laa xam ak li ma liggéey. si te mu sumeeku dongali papa ngaan kii aw gos ki aw. ak wala njar njarndeem la njarndeem la. barki ma xam nga man ma ci gën neex. mu moo dëkk rek Mbaye Ngoy. waaw nga wàcc ci suuf. <laughs> ma ramalal journée bu garaaw la Jax def. barki Serigne Touba Mbacke ay ndaanaan la ci boole. ay ndaanaan i ndaanaan. ay ndaanaan làmb ju riis. boo buggee gis làmb ju riis mooy le 22. te na ko ñëpp xaar. billaahi le 22. ça va Sophie. li ma koy yóbbante mooy di ko ñaan rek di ko wax mu dal jàmm. di ko wax ci mu ñëw ci jàmm dal ci jàmm ndax lu dul jàmm jàmmoo ko gën waaw di ko ñaan mu ñëw sant ma ko dara na ñëw taxaw rek. sant ko dara sant ma ko dara. loolu mooy wax lan ko dara na ñëw taxaw rek. lu fay def lu lu fay xew lu ne man daf ma leer ba leen maa koy def. kon moom lan la fay def. Ah. man de li ma liggéey laa xam. nga ne santoo ko dara na ñëw rek taxaw kon moom fay def. bu ko neexee na ñëw suul yaram bi ndengeñ tànk yi sant ma ko dara na ñëw taxaw rek. mais dafa ma leer ne lu fay xew lu ne ci kàttanu yàlla bu neexee yàlla waa koy def te incha allah rabi dinaa am ndam bu neexee yàlla moom lay ñaan yàlla. wàllu mobilisation fan nga si toll. ñu ngi ci ñu ngi ci mobilisation bu doy waar ku ci mel suma grand Pa Moussa ak suma grand laay ñoom Ngom. gars yi ñu ngi waaj lu garaaw idi fii la jour bi boo fi ñëwee oto du jàll. ndax moom nee kii ëpp li moom deuxième zone kon de na la leer ni maa nga ca biir te bi mu signé contrat bi ñu waxee loolu tamit loolu laa ko. Ah. mu ne ko na leen kon sa deuxième journée maa ngi ci biir te lu ma gëm la da parce que gars yaa ngi xaar daa am ci luñ jugee woon. Ah, daa am ci luñ jugee woon war a ñëw confirmer kon dañ ñëw rek confirmer ci kàttanu yàlla yaa nañ yàlla may wér rek. waaw di woo gars yëpp rek. di nuyu tamit avant tout dama ko fàtte bi may commencé dama waroon tàmbali suma dëkku yaay ak suma dëkk ñun ku xool ku ñu xam-xam ni ñun ay ay doomi Kajoor lañ. di woo waa Ndiassane su ma dëkku Pape ak waa Taïba Ndiaye li ko dalee Kajoor gépp maa ngi leen di woo waa cees sita Lamine marché bu mag marché muusante xam nga kër Ali kër Yoro Lam-Lam njiite njenne kër xaali kër Yoro sama dëkku yaay Taïba Ndiaye tunduk Taïba bi yëpp maa ngi leen di woo di woo sunu grand yi ku ci mel ni grand Pathé gisaguñ ko ci combat bi ñu ngi koy xaar sunu grand Lamine Diène ñu ngi koy woo ci combat bi ku ci mel ni suma grand xaadim depuis ba Italie moom yàgg na cee sonn yàgg na cee ñu ko wax mu jàppaat ci combat bi xaadim Silla ñu ngi koy woo bu baax di woo suñu grand siraajo Sirajo Diallo mu jàpp ci combat bi suñu président président jàmbaar Ibou Dieng ñu ngi koy woo ci combat bi Sëñ Saaliw ñu koy woo ci combat bi Pa iPhone ñu ngi koy woo ci combat bi laay ñu koy woo ci combat bi. Moussa borom bi <laughs> ñu ngi koy woo ci combat bi donte ne mi mais na gën a dox jéego di woo gaay yëpp. jàmbaar gépp ñu ngi leen di woo ci làmb ji xam nga Cité Baraak fàttewu ma leen ñoom mu jaañ taala gars yi ñu ngi ci préparation bu doy waar ASC yëpp maa ngi leen di woo lakkale Ceddo Magadaan Gunaas Guy gi sama gars yi foofu ñoom keebaa xam nga leen woo ci combat bi ñëw jàpp ci bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax la jour ci Papa nga ndengeñal yaram bi rek suul tànk loolu rek laa la sant. waaw di leen bu baax a baax rek di leen ziaraat di leen joxaat seen wàcc Paa Moussa diwal mais grand waaye ñu ngi ziar champion lépp Baara mooy doomu nday Baara waaw ñu ngi ziar wër ah, waaye sant alhamdulilah am ngeen combat de waaw am nañ combat moom mais du pousse du passe eh? du pousse du passe daa am ci luñ jóge am ci luñ jëm yaa ngi dégg te duñ ànd ak koo xam ne parewul yaa may dégg sunu mbër la xam nañ ci état bu mu ne xam nañ moom mooy kan daa am nag foo xam ne dañ faa bëgg a àgg yaa ngi dégg fa lañ jëm incha allahu rabbi làmb ji lu ngeen xalaat mi ngi fi gars yi pare nañ gars yi pare nañ laay saaba pare na Abdou Khadir pare na Ngom pare na jibi gars yëpp mafia bi yëpp pare nañ ndax ki ko jar moo ko jar suñu rakk la ñun bu ñuy ànd ak mbër du rey boppam du entraîné làmb jaralu ko lenn li non duñ ci sonn yaa ngi dégg ñun ñëpp ku ne am na ci loo jàpp mais nag jox nañu cër jox nañu respect teg na ñu war a teg ba pare bëgg na ko yaa ngi dégg gaa yëpp laay woo waa jàmbaar ñëpp ñu ñëw jàpp ci suñ doom la ñu ñëw jàpp ci gaa yi yaa ngi dégg ku nekk rek mbër seq naa yow loo xamante war nga mën a jàpp ci kombaam yaa ngi dégg affaire yi nag loolu la ko waa maanaam booy booy booy wuti feneen daa fekk sa ko boo tëggul yaa ngi dégg gaa yi nañ ñëw jàppale ko yaa ngi dégg suma waa ay ASC jàmbaar ñoom ñëpp maa leen di woo suma grand yi ñoom ñëpp ay borom baax lañ ñu ngi leen di woo ne leen soxla nañ jàppale bi yéen ñëpp ñu ngi leen di xaar ay Aline Mbaye ñoom ñëpp grand yëpp ñu ngi leen di xaar ay Ibou Dieng ñëpp fàttewuñ kenn. mais daal mhm. bër coom coom lépp koo jëndal ay biir. Mhm. waa mais gars yi pare nañ loolu pare na blog yi na ñëw loolu pare na gars yi pare nañ incha allahu rabbi jouru làmb ji boo ñëwee fii ci koñ bi li nga xam ne waa jàmbaar mooy loolu noonu. xam ngeen jàmbaar équipe bu mag la xam ngeen jàmbaar jàppale jàppale doomam rek waxuma la keneen may jàmbaar xam nga ne loo ko boole ASC jàmbar loo ko boole day neex te seen doom mooy bëre loolu gaa yi pare nañ bi yeeg yëpp incha allahu rabbi ku fi ñëw di nga xamante ne nii mooy loolu bu fekkee sa waay deuxième journée bi lay wax ñun pare nañ bu fekkee ne mbooloo rek la bëgg yaa ngi dégg no loolu moom waxatuñ ko gars yi dañ duy stade bi ba mu fees dell yaa ngi dégg te dama bëgg jouru làmb ji yéen gars yi ngeen ñëw fii ci koñ bi ngeen xool mbër mi nu mu war a génne ak li mu war a yóbbu stade gars yi pare nañ incha allahu rabbi ñi ngi ñaan yàlla may ñu ndam bu seddu guy ci barke Seydina Mohamed. ah fii mooy Lansar. waaw fii mooy c'est à l'aise quoi pas Moussa à l'aise place bi. maa ngi nuy sama client yi nag sama client yëpp naa leen ñëw leen bagage yi ñëw na téléphone yi ñëw na lépp ñëw na incha allahu rabbi lamb ji ku ci jàpp ku ci jënd billet boo ñëwee incha allah rabbi dina la defal wala tey dana la jox loo xamante ne nii mooy loolu noonu ñëw leen jënd ci ticket yi jàppale mbër mi ñun pare nañ. Ah, non Siteu waaw kooku moom leneen la ñuy wax moom incha allah rabbi làmb farataalu ma di di di kii làmb di dem làmb di festi làmb mais làmb ji sama làmb la. Ah. ndax borom làmb ji ni ma def la booy seet Siteu fii ngay ñëw Siteu du def lu ma yëgul lépp loo xamante ne nii mi ngi ciy dugg dina ma wax ak man maag laay ñu détaillé ci yëpp ñoo bokk ñooy partagé ndoo lépp daal danañ ma teg mbër sax ci biir géew bi incha allah rabbi di la bëggee waat bu baax a baax rek di la ziaraat di la sa wàcc waa ba waaw ñu jëm nag le 22 janvier journée Jax Liss Ndiago Ardo Thiatou Aïda Dada Fall Junior Thiatou Aïda Dada Fall Junior ñu nga xool xale yi si nekk su mel ni Thié at Siteu Boy Petersen at euh, Cargo Siteu Papa Ngane Sossokh xale yi si nekk bari Petit Sélé Cargo journée le 22 janvier la fii si arène nationale kan moo koy rëkk. ñu ne Momo Ngom doomu fils de Babou Ngom moo koy rëkk kan moo koy way ñu ne xoo ak kii la far ba Farba ko koy kan ñu ne ko koy Mboy ak Luum nee naa leen bu jour ba li fay neex lépp séeréer see koy def si ambiance ci tëgg si lépp ñoo koy def si ta waaw Fatou sum benn grand biñ dalaloon Gambie muy grand waawaan ñu koy sant bu baax ak benn grand Abdou ndax biñ demee Gambie wax dëgg yàlla taxaw nañu fi gën a riis Gambie lañ dugal salle yi gën a seer Gambie lañ abonné wax dëgg yàlla diñ jox lekk diñ jox naaw xam nga rek dundal mbër rek dafa métti nga yor ci lu mel ni ñett xam nga kon tamit kooku nag dañ koy sant bëgg di sant Momo président ASC euh, Magadane maa ngi koy sant bu baax di ko woo ci combat bu baax a baax pour mu jàpp ci yee sëñ Fallou jaajëf Khalil